di ñaanal sëñ Mountakha Mbacké mu yàgg fi te wér te ko ñaanal mboolem xalif généraux ci yërëm yëpp di ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu gën ñoo kàttanal gën ñoo nangu sunu koor yi nga xam ne tàbbi nañ ci di ko sant ci lim ñu kàttanal bu ñu mën a toog mën a fàttalante suñu diggante mu mel ni rek jamono ji nga xam ne ci lañ nekk wala weer wi nga xam ne ci lañ nekk nañ ko junjee woon ci njëlbeen muy weeru koor. doon weer woo xam ne weeru barke la di mbégte ngir doon gan goo xam ne suñu boom la ko fee yebal at bu jot mu ñëw gane sañu tàggat nag bi egsee kenn ku nekk xam na ne moom dañuy def rek moo di gàttandu ko waaye nag teral ko bu dee demit ñu ñu ñu sëf ko ñu mel ne ko amul dara loo xam ne mën nañ ko ko sëf mu jëriñ lu dul rek gën yokk sunu góorgóorlu ci jaamu yàlla yokk sunu góor góorgóorlu ci jaamu yàlla ndax dafay opportunité boo xam ne it li mu làq seen njëriñ moom laa tu'addu wala tuhsa yéen sax saa mi di wax it am na ci àjjana bunt boo xam ne kenn du fa dugg ñu du nga xam ne dañ daan woor kon nga laay kon koor googu nañ ci bàyyi xel gën ci góor góoru waaye beneen ba ci it bu dul dara dafa bokk ci li nga xam ni moy cinq piliers de l'islam mooy ñeenteelu ponk bi nga xamni ni té l'islam kon doon na kon loo xam ne kon ta ñak way nak nañuy fexé nak ba diko def ci ni ko suñu borom bëggé té bañ ko défé ñun ñu ko bëggé ñu déedéet naka la ko suñu borom bëggé rek moy ni nga xamna nak nag yoon saa salaam jàngalee rek suñu borom kat xaw wax nañu ko ni kiko ko def ko mooy kiko ko rek. ki ko war a def rek ki war woor mooy ko fekkee weer bi rek te képp koo xam ne nekk nga ci ab tukki boo xam ne tukki bu sori la nga bañ am ay gàllankoor boo wooree maa nga doon koo xam ne daa am tawar gu ne ci yow ba tax mun laa woor la nga daal di def rek moo di daal di bàyyi ba koor ga jeex balaa koor gi nga jaayante ba fay ko waxaat ni ba tey it euh, mu bëgg ci ñun rek mooy li nga xam ne lu yomb rek waaye amul dara lu jafe loo xam ne soo def suñu borom bëgg na ko ci ñoom kon indi gi mu ko fi indi kon ab texale na mu si ñun ab njéggal la bëgg ci ñun ab ragal yàlla bi nga xam ne moo ñu jik moom la bëgg ci ñun te ñoo ngi rafet suñu jort bu baax ni suñu borom dañu ko dinañ danañ nangu suñu koor laa ci des nag moo di ñu gën a góor góor ci jaamu yàlla yi ni nga xam ne ay juri lañ te xam ne ay juri lañ yàlla dogal ni seenu seenu seenu seenu seenu liir dafa xaw a des nañ ko jaayante ndax gis nañ Sénégal ma doon réew moo xam ni ñu bëgg diine dañ fay nekk réew moom ñu bëgg diine dañ fee nekk muy góor di jigéen donte léeg-léeg sax foo mu rëb sax foo ñu xaw am nuñ mel waaye boo xoolee ba ci biir ñu bëgg seen diine lañ waaye nag da cee am solo dëgg-dëgg ma ni ku bëggee dara da cee wone boppam waaw kon daanaka li ñu bëgg saa su nekk nañ nañ koy nañ koy wone nañ koy wane nag daanaka ay wax la rek. ak di koy ak ay jëf kon war naa feeñ ci suñuy colin war naa feeñ ci suñuy naa feeñ ci li nga xam ni moom lañuy wax ku dégg bëccëg suba ak ngoon ñiy yor suñuy kàddu kenn ku nekk di nga bëgg sa wax di ko bëgg sa mbokk li mooy islam jàmm kese lay islam woote jàmm kese kenn ku ne xam ne loolu kenn ku ne xam ne ni ci jàmm rek la lislaam di woy kon nag jàmm jooju nañu feex ba boo xam ni du ñagase suñu mukk du ñagase suñu mukk koor nag ñoo ngi koy def waaye nag fay gi kuñ ko fay ngurus ndax yaatu gi mu yaatu ndax yaatu gi mu waatu yaatu ndax suñu wax na ci ayo it wa tukabbirullah ala ma hadakum wa def na ko ngir bëgg lan ñi nga xam ne ñooy jëfe ko weeru koor am ci ay rëq-rëq bu koor gi jàllee ñu ñu mottali ko loolu du sanctionné de du sanction yàlla daa bëgg rek ngeen matal ngir ngeen sant ci xew gi mu leen di jox ndax bu ñu rek am na lu mu leen denc loo xam ni kuñ ko fay nga kàbbar kuñ ko fay di nga sant suñu borom ba jàpp ne suñu borom yow rek la sàkk kon yiw bu ñu ko kenn xañ bu ñu kenn xañ kooku yiw bu ñu ko kenn xañ kon nañu góor nag bu koor gi jàllee sax ñu kon ne ci gëna sax ci jaamu yàlla gi adna gi amul solo adna gi amul amul solo